dégg nga yàqu nga bu yàgg te yëguloo ko yàlla dana ko jox looloo loolu lu mu bëgg rek nag da yomb lool nag yomb goo xam ne sax da koy jaaxal fekk day mel ni meeb boo jël rek def ko ci oos ga sànni ci deex gi jëni bu yaakaar ne yiw nga ko yéene nax na boppam bu say pexe jubee léegi mu commencé yuuxu ci diw ga <laughs> ooy kenn mësul dégg loolu ma ngoog noonu la ñu nekkee xatta ida aw dem ba ñu janoog ñoom ñooñu weddoon yàlla maa yu aduna lépp loo xam ne digee soon na leen ko doon leen ko tëkkoo imma benn al adaba mooy ma boole nag rasulullahi mu duma leen bëccëg dara kàmbu ray leen wa imma ben ñu xaarandiku asaa yawmal qiyaama te boobaa bu ñu fa ñëwee du baax ci ñoom kon nag alal duna tokaay bi de jamono nag toll na fa mm. nit ñi di wane ne mooy nattukaay bi mm. ba tabaarakallaahu mm. a ah, la yàlla xam doy na bu la yàlla dimbaliwul rek gars yi daañu la këf këfin woo xam ne ba nga yëg ne këf nañ la fekk na yàgg na booba dem nga ba ci baat ci ndox doo mën a wàññeekoti fa sa yaalamuun daanu xami nag yéen ak ñoom man huwa ana kan dégg nga sarrun moo yées le makaanan moo gën a woyaf le gën a suufile makaanan ci place waa daafu moo gën a doye de la gën a feebule jun dan ci ay soldaar ëllëg yowmal qiyaama dana leer wa yazidu dana dolli allahu yàlla sunu boroom alladina gaa ya nga xam ne dégg nga loo teg ihtadaw gindiku nañu gëm nañu yàlla yàlla dana leen dolli hudan ak njub te mooy alquran ji wàcc ndax ñoom seen yitte du dara lu yàlla nit yàlla yi dañuy wax ne képp koo xam ne yitteem mooy àgg ca xadra yàlla ba yàlla dina la tëbbu jëf yoo xam ne jëfi xol lay doon nga mucc ci mboolem jikko yu suufe yi yu ñaaw yi nga mën a yéeg nag waaw kay comme lii mooy sa yitte yàlla rek mooy sa yitte yàlla naa la boole ku teg ci yoon ndax wali si ne jaahadu fii naa la nahdihim subulana loolu rek la aha aywa wal baaqiyaatu way des yi mooy jëf yi des yi assaalihaat yey way yiw moom day des ñeel boroomam subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yooyu moom dafay des laa hawla wala quwwata illa billah mooy jëf yu baax yi ngay def te yàlla rek tax kooku moom day des ànd ak boroomam ba biir aljanna xayrun moo gën fuuf kër yi ngeen di ci puukarante moo gën fuuf oto yi ngeen di puukarante moo gën lépp lu puukarante inda rabbika fa sa sawaaban ci fay te wa xayrun moo gën itam maradan ci delluwaay ëllëg ci delluwaay bu ngeen di mën dellu amoo fa benn delluwaay bu gën yiw amu fa dégg nga euh, aaya ji ñuy waaj wax nee ñu mu ngi wàccoon ci xabab ibnul arti dafay liggéeyal aas ibnu wail xam nga xabab tëgg la woon boo xam ne daan defar ay jaaseeg ay machine ay sareet ay dégg nga maam kaabal lu ne mu defar Aas ibn Waayil nag liggéey loon ko benn jaasi ba mu ko liggéeylee jaasi yi ba pare waxtu wañu waxante woon pour mu fay ko mu ne ko fayal mu ne du ma fay fayal waa ji ah, xabaab fu ne mu darti darti fa fay mu ne ko du la fay de moom kay bu ma la fayee dañoo gisante ci kanamu yàlla ci comme ni ngeen waxee ne daañ fa dem gëmu ko suñ demee foofa su ma yàlla joxee li may jox ma comp ci fay la <laughs> kii de saay saay la xam naa ne yàlla dikk nag di tontu ak moomu afaraayta xamal ma alladi waaja nga xam ne kafara attan na weddi bi na sun alquran jiite mooy aas ibnu wail weddi yenent bi waxaala muy wax xabaab ibnul arti ba ko doon liggéeyal jaasi ja naka la uuta yan na naa la jox dégg de maalan na danañ ko jox daal bi maanaa danañ ko jox moom maalan alalam wala ak njabootam bu ko defee ëllëg su ma dekkee suñ ma joxee sama alal ak sama jaboot naa la fay man yàlla ne waaw ah moom day yégal na niveau bi xam naa ne atalaal xayba aywa jazakallah atalaal xayba ah léegi daal ndax dafa yundu kumpa dafa xamul lu ñëwagul bay attee noonu boppam ah? foofu nag bàyyil xel maam Saïd alifu listifaam gi ak hamsatul wasli fi nekkoon ñaari hamsa yi dañu fi daje moo tax ñu xasaf alifu listifaam gi bàyyi xaw ma alifu hamsatul wasli gi bàyyi fii listifaam gi noonu tabaarakallaahu mu ndax doo mun a ah ah dafa diis bopp doo ko mën wax moo tax nga jëlee fi alifu hamsatul wasli gi yi nekkoon cosaan nga jëlee ko fo rek bàyyi fii alifu listifaam gi moo tax nga ne atalal xayba ndax dafa xam kumpa ba tax wala dañ kaa xamal ne ko ëllëg bu dekkee yàlla naka jox njabootam jox ko doomam jox ko àllam jox ko léppam pour mu fay ci ndax loolu dañ kaa wax wala ku ko ko informé tontuwul sun war a amee taxas wala ndax dafa jàpp boobu inda rahmaani fa yàlla ah dan kóllëre boobu ndax dafa kóllëranteeg yàlla te kóllëranteeg yàlla kat mooy jaar fi yénant bi jaarlu soo fa jaaree yaa ngi kóllëranteeg yàlla waaw kay waaye bu fekkee yow nangoo faa jaar ba naan yëf yi dana agsi ah, fi nga taxaw baaxul amay taxasa inda rahmaani ahda kallaa déedéet tëddewul ni mu ko waxee déedéet kallaa déedéet waaw ñëw na fanweeri yoon nag ci alquran baatu kallaa boobu ñëw na fanweeri yoon ci alquran sa naktubu daanu bind du yàlla jonjo mbind ma waaye xam nga ne majaas la daam ñuy wàkkil mbind ma daañu bind nun yàlla maa yaqulu lépp loo xam ne ma ngi koy addu ci gémmiñam googule te itam mu du daanu dolli lahu ñeel ko minal adaabi ca mbugal ma maddan ak tëbb mooy daañu ko dolli mbugal ci kaw mbugal ëllëg yowmal qiyaama bu teer see fii te alal jooju muy tiitaroo na nag naan daañ ko ko jox léegi tey mu jugee fi ñu donn ko wa narisuhu daanu ko dollu nun yàlla maa yaqulu lii muy wax di ko tiitaroo fu ne mu daag jaag faak moom yaakaar ne mooy borom yëf yi na boppam léegi ma dox digganteem ak alal ji te wa dana danañu dikkal far dambir moom mu nekk kenn suy dekki wala su dugg ci bàmmeel ah gisoo ñun ñëpp ku ci dugg ci bàmmeel lu alal ji bëri bëri bëri bëri Jesner gars yi nañ nañ la kaa xotti sàngala nañ nañ ko Jesner <laughs> rek laa la wax de waaw ku la dugal wala ak Jesner ci biir. waaye dana la dugal ay compte banque yeeg nangam sangam yeeg coffre-fort yi dama ne gars yi nañ delloo seen xel laa la wax moom kay dañuy seet lay jar téeméer rek ñaar fukk wala la ko gën a tuuti ñoo nañ ko ci sàng man yi mën nañ bàyyi xel de waaw malikaan boobu nga xam ne yomb na lool <laughs> ma ngo yaatinaa farda wattaxasu jàppoon nañu alihatan ay yàlla yu ñu fiy jaamu min dunillahi bàyyi fi yàlla moo leen yóbbee loolu yàlla yooyu ñu jàppoon di ka jaamu tax na euh, li yakunu pour ñu nekk ñoom yàlla yi lahum ñeel leen izzan di way ram fa yàlla pour ëllëg buñ leen duma ñu nekk ñoo xam ne daal dañ leen di dëgërloo tabaarakallah di ut seen ngërmande te fañ koy utee ngërmande yàlla de ko fa kallaa du tee leen duma dama ne bu fekkee dañoo ànd ak ña ñu ànd ak daal te jaamu yàlla nangu caa am dama ne su ma dajeeg ñoom duma leen laa wax sa yakfuruun te itam yàlla ya daañu leen weddi bi ibadatihim yàlla ya daañu wax ne ñun daal maakaanu iyaana yaabudu ñii musuñ ñoo jaamu dañuy kàcc rek dañuy safal rek dañoo am jot rek wa yakunu ñu mujj nekk nag ñoom ñëpp alayhim te ñoom ñoom yàlla ya ak ñeleen doon jaamu di dandi ay noonu nekk ay ennemis yu mat sëkk kenn ku ne di poñe sa morom yaa ma ko yóbbee damaa ki yoon nga kii coow kur la fay mujj nag mooy laa tax la dayya loolu rek a cay di discours boobu rek ay mujj sunu borom ya alam tara xanaa gisuloo yow yenent bi wala yow jullit bi nun yàlla arsal naa yabal nanu dégg nga ko de a shayatin shayat seytaane yi ñun ñoo leen alal kaafiriin ci ñi nga xam ne dañu weddi yàlla su ko defee te uzzuhum ñu leen di jay di leen kiirtal ci ak mooy yàlla azan ak jay waaw da ngay bàyyi julli tàkkusaan ma defal la nangam nangam muy ay sacrifice booy julli doo yor njàpp sacrifice del jël del del njaaloo naan saangara yooyu yëpp ma defal la nangam ak nangam sacrifice yëpp mooy te uzzuhum azza dégg nga yooyu bu baax te man taazaza bi maxluqin ma taizzuhu waaw ndax fa nga ko wékk du wékkukaay bu fekkee da ngaa bëgg ko tuddee sa cumekaay daal da dem ci ku dul dee mooy yàlla soo ko defee yëf yooyu yomb neex waaye keneen koo ko wékk ku dul yàlla yàq nga ko aha fala taajal bul yàkkamti nag alayhim ci ñoom ci mbugal mii ñuy sàkku ci yow toujours toujours na ñëw bàyyi leen rek innama nauddu duma ludul daañu lim lahum ñeel leen fan yiñ fi war a dund ak nokki yiñ fi war a nokki addan ak lim waaw kon liñ fi war a nokki yàlla nee na lim naa ko pare at yiñ fi war a am lim naa ko weer yi guddi yeeg bëccëg yi xam naa ñaata lay doon limité naa ko avant muy ñëw ndeysaan fan yii damay xool benn téere bu ñuy wax min mawaa'idil anbiya wa sahabati wa taabiin téere bu baax la nag xasanul basri di wax ne adduna ak àllaaxira daal dafa mel ni penku ak soowu penku ak soowu ni mu mel noonu la mel boo départ penku fee nga def fii mooy penku xam nga nga départ ci koñ jàkk ji di dox jëm si beneen koñ ba la jëm soowu noo gën a sore fii gën a jege ji fee góor gi bu saaxo daan wax ne ku sori fa ngay xëy jege ji fa ngay fanaani mooy comme téeméeri at nga war a dund wax dëgg yàlla bis bu set at mu jot day wàññeeku waaye doo doo yokk ñun nag dañoo yaakaar loolay gudd fan da yokk wala wàññeeku naa dégg <laughs> eh, sëñ Baye di ko wax da wàññeeku yokkuloo ñun nag moom dañoo yaakaar ne noo fi gën a nekkee paa yàgg nga fi noo fi gën a nekkee paa gën a jege pax ma kenn mësul dégg loolu kon rek ma ngoog nauddu lahum adda dañ leen di wàññil seen dund yeeg seen fan yi lépp nu noo koy calcul ñun yàlla kon nag loolu mat nay bàyyi xel nokk yi ngay nokkeeg fan yi di ko suuraale mën na bàyyi xel waaye feebaraguma rek dara daraguma wala màggataguma loolu it njuumte la bis bu set li nga fiy gis gone yi dee sax léegi kenn xam nga nu mu toll paa yi sax léegi fàttalikul yow ma naxsuru bis bañuy fang almuttaqiin waaye ragal ñi yàlla ñi ila rahmaani jëmaleen ci yàlla mi nga xam ne mooy borom yërmaane ju mag ji wafdan mbir moom ñu nekk ay délégation délégation yoo xam ne dañu war wa nasuuqu ñuy màng ak a jiital gurgur waaw lu bañ a dem pour nga xam loolu wàccal pont bi dajeeg pël bi jiital ci coggal gi mu leen di jaar da nga gis xar yi dañuy bañ bañ lu waa da gurgur rek boo amee seetlu gis nga ko day gurgur rek <laughs> bu mën dem dem bu mënul dem muy caw rek mooy wana suuqul mujrimiin daañu fang saay saay si ñi weddi woon gurgur leen ilaa jahannam jëme leen sawara waw ñuy jahannam wér gaa mbir moom ñu nekk ñu mara mara mar ba mar day taali te foofu nag laa kuuna du ñu fa am ëllëg yowmal qiyaama ashafaata ak tinu ak ramm amul kenn ku leen fay ramm ni ko sénégalais yi yombalee fii yombul noonu de ñun kay noo bëgg lu yomb di ko yombale yombal noonu ba gaa yi séddee logement yi ba pare war nañ waruñu fa ñoo def dara caaxaan illaa man lu dul koo xam ne itta xasa jàppoon na indi rahmaani fa yàlla ahdan ak kóllëre ka fa yàlla jox autorisation muy ràmm ak kañuy ràmm day fekk ne doon na góorgóorlu fii góorgóorlu baa des waaw noonu rek la fekk na nangoon nga wax nangu woon la nangu nga yàlla xanaa da ngaa nekkoon ba say benn benn ëpp say baax baax rek loolu rek la la jëgóor gi bu saax doon fa nag jar nga bàcc bàccal wa qaalu wax nañ ñoom yahud yi ak nasraan yi nee ñu ittaxasa jàpp na am na arrahmaanu yàlla wala dañ nee ñu yàlla am na doom am nañu fitu wax loolu wax ji ëpp na de sunu borom ne ah wax nañ xay moo tax yàlla day wax ci yéen bi day jàngale ci benn xadiisul qudsi yàlla di ci wax ne sama jaam yi de fen loo nañ ma saaga nañ ma xas nañ ma weddi nañ ma weddi giñ ma weddi mooy dañ fiy jaamu keneen ku dul man wala fen loo nañ ma kon mooy neeñ duma ma leen delloosi comme na ma leen sose woon aha saa giñ ma saaga mooy neeñ yàlla am na doom te man daal aw ma doom aw ma ci dara waaw yii yëpp jaar na fi waaye rek ma ngoog dégg nga ittaxasa rahmaan walada mu ne leen laqat jiitum dëgg-dëgg indi ngeen sey an mbir moo xam ne iddaa mu jéggi dayo la kàddu yooyu diis na gan na gan ba asamaan ba mu ko déggee xaw nay toj sax moom asamaan ndax diisaayu kàddu gi ak réyaayu kàddu gi doomu aadama kay moo koy dégg du ko déranger yàlla am na doom yii yooyu ñi mu ko ñoom kàddu googu dafa ëpp takaadu xaw koon na assamaawaatu asamaan yi yatafattar na di fet minhu ci saabu kàddu googu de wa tanshaqu du xottiku al ardu suuf wa taqiru du daanu al jibaalu montagne yi hëddan ak daanu ngir lan di mabbu ak mabbu ngir lan kàddu yooyu nga xam ne ñoom yëkkati nañ ko jëme ko ci yàlla waaw jëme ko ci yàlla an ci wooteel goo xam ne wooteel nañu ko li rahmaani ñel suñu boroom wala daa wax gi ñu wax na yàlla am na doom daal moo tax lii xew nii yàlla nag jaadu muy am doom waxoon nañ la ko wa maa yambagi jaaduwul li rahmaani ñel yàlla suñu boroom an yettaki sa muy jàpp walla dan di ut doom doyu bu ko daara ndax manqué manqué yi nekk ci ñun ba tax ñuy ut doom lu ne ñu cay dugg kooko nekkul ci yàlla waaw nekkul ci yàlla kat kon nag moom soo koy bëgg da nga koy bëgg bëgg gu sell doo ci rax dara mooy tax nga yegg la nit yàlla ba waxoon rek in turit naa fa mawtuka shartun de ndax laa yanaalul wisaala man fiihi fadila <laughs> nee na soo bëggee àgg si ñun ñun yàlla doo yëgati ne dara ngi fi fii ak yaa ngi yëg ne dara fi daal départ goo comme li ma la waxoon rek ma ay caa sunu borom ne ci caaxaan ngeen ne kaay ma leeral leen in kullu amul dara dara dara man fi samawaati lu nekk ci asamaan sii wala ardi ak suuf sii lu fu nekk lumu lumu illa aati rahman lu dana dikkal yàlla ëllëg abdan di jaam kese yaay xutbu baag yaay yenant baag loo mën di doon ëllëg jaam képp ngay doon ci kanamu yàlla moo tax yenant bi moom li wala fi naan teel a nangu dafaa yombali dóor loolu la moom nee na tur yi ñu ko tuddee yëpp bi ko ci gën a neex mooy yàlla tuddee gi ma tuddee ab jaam laa yéeg ne nekk naa jaam daal man loolu daal neex na ma lool soo ko defee da ngay dégg nga ko bu baax a baax laqad ahsaahum takk na moom yàlla nit ñi liñ fi war a dund ak liñ fiy def lépp wa addahum lim na ko wàññi na ko aristre na ko addan ak lim amul kenn kuy rëcc te wa ku mu ci jaam ñi ak koo mën di doon aatihi aji dikkal la yàlla yawmal qiyaamati yawmal qiyaam bi si bisu taxawaay ba fardaa mbir moom mu nekk kenn du teewaaleeg alal du teewaaleeg kenn moom dong mooy ñëw li ma la waxoon fii léegi bi dama ne ko dugal ci biir bàmmeel bi laa la wax ak noo ko barile bërile lal bi waxi nopp wifi bi kenn du ko fa dugalaale yëpp dara duñ fa dugal dara amul maa ko doon fay ak yooyu da ngay guddal mbayam noonu rek dama ne inna alladina naka gaa yi nga xam ne daal amanu gëm nanu wa amilu saalihaati ñuy def farata yi ak naafila yi sunu borom nee na sayi jaalu dana defal lahum ñeel leen arrahmaanu yàlla sunu borom dana leen defal wuddan ak cofeel goo xam ne mooy dox seen diggante ba ñu soppante bëggante waaw wuddan ak cofeel goo xam ne mooy tax nu bëggante yërëmante soppante ba tabaarakallaahu ba la yonent bi sallallaahu alayhi wa daan wax rek jaam bi du dañ di jaamu yàlla ci ay naafila dem ba yàlla bëggal ko boppam tabaarakallaahu te su ko yàlla bëggalee boppam nag day nekk léppam su nekkee léppam nag ne jibril diw sàngam kat defal naa ko xabul mooy bëgg naa ko na ko waa asamaan bëgg noonu nag laay defee ci xolu nit ñi forcé leen ko nu bëgg ko far force duñ xam ne leen bëgg loo waaj fekk ca kaw lañ joxee ndigal ku waa asamaan bëgg lu waa suuf di xaar bu fekkee nit ku nite nga xam li xew looy xaar di te ndeefal matu ko kon yooyu ca kaw la ah da nga gis koo xam ne day sangoo bayre ba sonn lu ne mu laal ko waaye mel ni gars yi dañ kaa gën a du mooy bi ñëwagul de fële la <laughs> gis koo xam ne laalul dara yàlla naa ca jublu leen ko moo ma neex waaye fekk na yàlla du tax ngay joxoñ diw hmm? doy na waar kon nag sa yëlaw rahman wudda fa innama yassarnaahu xamal ne jàppandañ lañ alquran ji yombal nañ ko bi lisaanika ci sa def ko làmmiñu arab li tubashira bihi pour nga ciy bégal almuttaqiin ñi nga xam ne ñooy ñi ragal yàlla ñi wa tundira ak it ngay bihi ci alquran ji xaw ma nit ñoo xam ne ludda mën a xottantal lañu mën a werante lool nee na wa kamaa ahlaknaa bëri na bu ñu alagee xablahum la leen fi jiitu woon min xarnin ci maas seekal yi leen fi jiitu woon bañ dof dof loo weddi yàlla jëflante nañ ñoom xal tuxissu ndax dayeeti nga wala ndax yëgati nga minhum ca ñoom min ahadin ci kenn ci ñoom ndax yëgati nga fi kenn ku fi yëngatuuti aw tas ma wala ngay dégg lahum ñeel leen Erickson kepp keppati daal la yëngati ko fa ñi ma alaat ba ñu jeex ba nga demee seen dëkk yi ndax déggatu leen luy yëngatooti déedéet dara yëngatul ñoom ñëpp naax saay nañu saar woowu noonu la day ñu jàll ci beneen saar wi ci des